badri naa ki nga xam ne mooy suñu weer lu ñu xam mooñu ko xamal maam bàyyee wax alwahaaji bay tàkkaakoon ndax mbóot yi nekkoon ci moom ak xam-xam ba ak sell ga moo tax mu tuddee ko wahaaj faal sébra ne min baadi bismillaahi gannaaw ma tuddee yàlla gannaaw ba ma waxee bismillaahi suma alhamdulillahi ma teg ca sant yàlla yàlla man di tawli yàlla may borom kàttan al azimi ki di aji màgg nekkul nag màgg màgg ak jëmm almajdi almajdi ke di aji tedd yàlla mu maa ngi koy sant bu baax a baax nee na lii ak laaye biir la min ni gu jógee ci man Sëriñ Ibrahima Niass ilaa ixwaani mu jëm ci samay mbokk mooy lan fal tum si koo jàppi leen tariqata tijaani eh, maanaam yoonu Cheikh Ahmad Tijaan dafa mel ni danga koo laaj lu ko waral mu ne tariqa mahdil fadli yoon wu sell ay ngëneel la am nay secret de woo ridwaan ak i ngërmaane ku bëgg yàlla gërëm la nekk ci ki ko xam ki ko xam mooy mooy ki ko ñam lu tax ku sisi ñu ngi ko sosee bi sunnati ci sunna wal furqaan ak alquran alquran moo ne fa qultu staxfiru dénk dégg alquran moo ne yaa lazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman alquran moo ne faalam annahu laa ilaaha illallah kon secret yooyu rek moo nekk ci biir sellu nga ko waaw sunna itam noonu la ko saxalee dégg nga incha allah